xamante ni mooy waa Thiadiaye sama fiesta maa ngi leen di nuyu di ñoom ba tey di leen bëgg leen def sama xol di nuyu mami. jërëjëf la nuyu bu baax a baax a baax. waaw mami. ça va Didier. yaa ngi cool. maa ngi cool. dara yàqul. lépp tolloo lépp a baax. macha allah. Mhm. nuyu naa leen bu baax di jee tutu nuyu naa la di nuyu waa Caajaay parce que soo leen nuyoo te nuyuma leen day ñaaw waaw di nuyu suñu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan tous les jours bu 18 heures jotee jàpp 18 heures 30 si télé bu bleu blanc bi mhm. ah, tey dama wax ibi télé bu bleu bi laay wax noonu lañ koy waxee <laughs> France 24 mhm, ma dem di nuyu sama <laughs> yaayu bébé Rose borom flash couture ma copine nuyu naa la nuyu bébé Rose xam nga rek yaa ma gën a xam nuyu nañu ko ma ngoog ci jotaay li nag ñu ngi ci àndoon ak sponsor bi ñuy gunge 1xBet moo leen di may sama Sénégal 1xBet ku ne gis na ni mu mel ak askanu Sénégal bis bu jot ñuy nekk millionnaire grâce ak 1xBet ci bi ngeen di dem ci suñu application bi nga xamee moom di 3w point 1 di pronostiquer ci match yi am pratiquement euh, ci Ligue des champions bi euh, Champions League ak yeneen ak yeneen comme ni ngeen ko doon defee euh, ci fi nga xamee moom di ci Coupe d'Afrique des Nations bari na ay millionnaires yoo xamee ñi ngi fii ci réew mi ba nu ko doon ak léegi yàggul ndax 1xbet bi mu ñëweek léegi yàggul waaye wër na réew mi kenn ku ci nekk bu ñu xëyee suba tey rek dinañ tenté suñu chance ci je jeu concours bobu nga xamné bës bu jot ñu amal ko ci application bi aussi bu leen nexé ngeen euh, télécharger ko ci sen euh, téléphone portable nga xam à tout moment lépp luy euh, programme football yi nga xam da nga ci bëgg participer di nga ci mëna a dugg participer comme ni nga ko bëggé one xbet nak ni nga dafa ñëw pour ngeen doon ay millionnaire millionnaire je concours bi nak LONASE mo mënu ko autoriser donc ñing koy ayé ñi nga xam amagunu fukki at djoum juróom manam ni am 18 ans fofu la yam donc euh, euh, interdit au moins de 18 ans di àndandoo ak Wave merci ñu ngi leen di gërëm ñoom suñu partenaires yooyu nga xam ñu ngi ñuy euh, gunge Wave nag ku ne gis na campagne bi ñu nek actuellement di paiement marchand bi nga xamee actuellement mën ngeen dem ci grande surface yi fu ngeen fa dem ngir jënd seen ay bëgg-bëgg japp leen ne lu ngeen jënd ci nu mu mën mënti toll dinañ leen ci wàññi lu toll ci 1 pour cent maanaam junni bu ne dinañ tay wàññi fukki dërëm delloowaat la ko.

nga euh, proposé nous benn vidéo ñu seetaan ko juste après bu ñu dellu si di ngeen mëna xam ci kan lañuy ñuy waxtaan tey nag dañuy euh, émission bi yëpp dañ ko jël rendre ko hommage ñukalé ko jigéen ju mën góor kenn la ci réew ni juste après bu ñu dellu si di ngeen xam kan lañuy wax régie juste après on revient. mbokk yi ak xarit yi yeen ñi sétane fi ci Sénégal Afrique ak yeneen i réew aduna man Coumba Gawlo maa leen nuyu balaa dara. di leen souhaiter une bonne et heureuse année 2021 di leen ñaanal atum 2021 bi nga xamante ni moom la ñu dugg nekk atu jàmm atu xéwal atu naataange ndax gis ngeen ni génn nañu 2020 bi ak ay jafe-jafe yu bëri ndax wopp ji nga xamante ni moo di coronavirus ñu ñëwit di dugg 2021 di ko ko doore muy lu metti lool waaye bu mu tax benn yoon kenn wàcce say loxo ñépp takku taxaw temm yokk ngëm gi yokku fit gi yokku pasteef gi te it wéy di respecter mesure barrière yi bu ko defee suñu boroom dinañu ci dimbali kon maa ngi ñaanal ñépp atum jàmm atum xéewal tey nag damaa ñëw waxtaan ak yéen ak euh, naqar bu bari euh, ci benn euh, mbir boo xamante ni nii lu ma soxal la loo xamante ni nii am naa beaucoup de tristesse ak difficulté wax ci waaye ma naa ci waxtaan ak yéen rek

Eh, lii di mbirum way moom dinaa ko xaw a teg tuuti eh, ci suuf ba ci kanam li eh, ko waral nag mooy tawat rek ju ndaw joo xamante ni nii mu ngi ci sama baat te waykat moom baatam te gannaaw nag docteur yi saytu nañ ko gis ni dama war a toog ak diir daal bañ a way ndax li nga xamante ni nii moo ko waral tere na maa way ba mënumaa way te ciit léeg-léeg sax mu tere maa wax kon dama war a ab diir rek toog ci langue way gi ma teg ko fee arrêté pour un moment xam naa nag dina jaaxal yu bari ma ci waxee ndax suñu société Afrique moom dañuy waral ni wopp kenn du ko wax danga war di nëbbatu waaye man li ma gëm mooy suñu boroom moom moo jiitu ci lépp mooy nekk ci digg ba te moo mujj ci lépp teg ci boo amee ay fans am ay sopp am ay partenaire seq ñoom ay liggéey say sopp di la xaar di la séemu baax na lu mel nii bu amee ba tax laa empêché nga def sa liggéey bi tax nga mën a saafonte ak say fans nga toog wax ñoom ñoo xam ne ah ñun kat sunu artiste bi buñ ko gisul lii moo ko waral waaye du ne sunu artiste daa yàccaaral wala dafa toog wala dafa des gannaaw déedéet loolu waralu ko benn yoon dafa am raison bu valable boo xamante nit ñi rek moo ko waral te loolu yëpp li ko waral mooy weer ci gannaaw dama amoon wopp ju ñuy wax occlusion intestinale maanaam samay butit fasu dafay faral di dal di jékki-jékki say butit jaxasoo wala mu fasu ba tax ñu daal di may yóbbu urgence opéré ma dagg ci sama intestin bi euh, lu toll maanaam samay butit lu tolloo mettre ak lu teg ngir man maa sauvé may sant nag suñu borom bu baax bi ma ci génnee waaye nag bu ma ci génnee yàlla dafa def bi samay docteur diagnostiqué ni gis ni sama baat daal mënatu la wax ni nga am jafe-jafe ñu gis ni raakol ba nga xamanteni ni nii la lañ ma defaloon ci opération ba moo indi ay endommagement yoo xamanteni ni nii moo waral eh, ma xaw a toog ab diir waaye maa ngi sant suñu borom bu baax di dolliwaat eh, di dellu ci eh, suñu borom xam ne lépp moom la bëgg ngeen dalal seen xel Euh, yéen waa Sénégal ndax Sénégal moom ñëpp ma fi bëgg ñëpp ma fi jox cër Afrique noonu euh, adduniyaa noonu ñu xam ne rek lu am yàlla la te maa ngi sant bu baax ndax bu ngeen deen xool loolu alhamdulilah comme que mi ngi sant bu baax ñu nit ñu ngi sant bu baax mais à la demande Sénégal gi yëpp dañu nii Kumba namm nañu la Gawlo namm nañu la dellu si waatal ci suñu loxo parce que Euh, def na ak diir ak léegi bi nga absenté ci scène musicale bi ñun ñëpp xam nañ li ko waral c'est pas la peine ñu ci revenir waaye ñun doon ko nam al actuellement nag ma nga ca bitim réew mi ngi tane bu baax a baax a baax te nag dañu jël émission bi yëpp jagleel ko ko euh, jigéen ju mën góor jigéen ju euh, brave boo xamee yàgg na liggéey di promouvoir la culture africaine yàgg na liggéey ngir promouvoir jikkoy jigéen ak valeur yi nekk ci jigéen dinañ ci ñëw léegi léegi plateau bi dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyoon teg téléspectateurs yi juste après ñu doogay dikk ci li ñu war a def témoignage ci gawlo boobu soo Absa Ndiaye Corokuli Absa Ndiaye Birima Daale Absa Ndiaye euh, moom Kumba salaamaaleykum Magaye. waaleykum salaam. ñoo ngi lay siyaare waay. maa lay nuyu baax Pagos. <laughs> nama nga dem nag sama xarit nama nga dem nag Kumba de. waaw waaw namm naa ko moo waral lii. naan ko kuy fëgg. moo waral yegg si moo waral moo ko ca kaw. <laughs> walaay walaay. di sant yàlla bu baax. Mm-hmm. Euh, ndax àdduna. Mm-hmm. ànd euh, jariñante la. c'est vrai. waaw jariñante nag boo ko déggee. Mm. du ci alal kese. Mm-hmm. du ci yére. Mm. waaye wax ju rafet baax na ci. ak fàttaliku. Mm. fàttaliku leer baax na ci. ndax nag nit moom. li nga ji rek loolu ngay mhm. ko lii nak mom moko liggey ci ñun. Mhm. Euh, may nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu Tëngéej gi nga xam ne fa laa jóge mhm. fa laa fekk baax. Euh, di nuyu suma yaay Ajaratu fanjay Ndiaye. Euh, di ñaanal yalla bayiko fi. amin amin lu yag mu sax. di nuyu nak ki nga xam ke ni Ali Maysa Ali Ndiaye. wa grand diva ala voix d'or. ki nga xam ànd naa moom à travers le monde entier. Mm-hmm. ki nga xam ne su ma xamee première classe ci avion moom moo tax. ndeysaan. cinq étoiles su ma ko miinee moom moo tax. Mm-hmm. Euh, mu def ci ñun nag fulla ak fayda ak jom. Mm-hmm. ndox nit booy ànd ak moom tamit euh, ndox. Euh, taal baa ko wàllu jikko ba mu mel ni moom. mo waral ñun bo ñu gisé sax xam ñun typiquement Kumba Gawlo la eh, di contane lool ci li nga xamé nek bi bii ak nimuko nimuko ko ni ko surtout mo ñu gëna neex parce que surprise la won bo xamé nek ñun dañ ko garder euh idée bi mënon na jëgë ci ku nekk yalla jaarale ko ci sama jëm ji mu nekk lu war nak ndax kuma seen seen gaw la eh, ma dajale ñëpp ci ndimbalu yàlla. Mm-hmm. ci mbaaxam ndax ku ne xam na ne jot amul. Oh. ñu defal ko surprise bu mel nii. Oh. rendre ko ko hommage encouragé ko euh, ñaax ko. Mm-hmm. ndax moom gaynde la. Mm-hmm. te gis naa ne ci benn affaire bu ma gën a neex mooy bi way bi bi mu déggee way bi ñu yónnee ko ñun musicien gis naa ci moom comportement boo xam ne. boo maytul semaine prochaine mu way. sérieux maa la wax. bi ngeen dugg studio. waaw. est-ce que bi ngeen di dugg studio da ngeen ko yëgal ni ko dañ la war a rendre hommage ñun say musiciens. déedéet ndax euh, surprise la nag ci moom. d'accord yëgul clip yëgul enregistrement. Mhm. yëgul morceau bi nga xamante ne moom laa choisir pour ñu jël ko. Mhm. yëgul dara. Mhm. lu dul ba nu paree ba def lu nu war a def parce que jour anniversaire am lañ ko waroon génne. waaw après nag bon ma ne jour anniversaire am. ak Coupe d'Afrique bi. ak li xew lépp. mën na bañ a fees comme ni ñu ko bëggee dañuy bàyyi ba lépp seet euh, anniversaire am moo nekkoon euh, semaine bi passé la woon anniversaire am ah le vingt neuf bi mhm. passé la woon anniversaire am donc ñu waroon ko génne ci jour bi mhm. mu tombe gars yi di waajal match yu Sénégal yeeg yooyu ñu ne nañ ko puus ba Sénégal indi coupe bi mhm. waaw kon way wi jig nañu waaw macha allah ñu ngi koy ñaanal mu gaaw dellu si comme ni ma ko waxee ci way bi rek euh, gaaw la dellu si waaw di sant yàlla bu baax. jot na waaw kon nag euh, ci musique africaine yaatu na li mu liggéey ci musique sénégalaise yaatu na à l'âge de 14 ans euh, ci la fi jël raaya bu donc euh, à l'âge de 14 ans ñu ni ko double disque d'or et de platine doon fi Cora Awards waaye aussi tamit nekk fi ambassadrice de beaucoup d'organismes du système des Nations Unies. Euh, nekk fi femme femme euh, chef d'entreprise mm-hmm. avec son groupe de Go Média mm-hmm. euh, radio rajo bu mag boobu gis ngeen li liggéey ci Sénégal pour lu jëm ci côté média Mouy Fem FM mm-hmm. ba ci télévision bi nga xamante ni ñu ngi koy waaj a di Fem FM Fem FM Là, ku ne xam signification bi femme enfant ak musique ñett ñi moo ko mos a soxal depuis que mu nekk Kumba bu national mi ngi promouvoir

de par euh, ni muy solo de par waxinam de par engagement yi nek ci mom Kumba Gawlo donc tay dinañ am chance peut-être man duma ma mën a def témoignage euh, euh magay defal ñu ci mom ay témoignage après euh, binu découvrir li nga xamné ne di single binu ko rendre hommage Kumba Gawlo depuis bimu démarrer démarré ak légui am na ñu mu doon àndandool dinañ leen jël ci antenne bi waaye aussi euh, jël ay jege ñaaleem ku ci mel ni way juróom bu jigéen ajot fat say mbaay ma busu ab sa njaay corokuli ab sa njaay birima daali ab sa njaay mhm. euh, ci antenne bi mi waral coow li mu wax ñu ci doomam ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñoo ko rendre hommage ñoom rek ñoo ko war a rendre hommage moo tax ñu jiital ko euh, ci réew mi yi nga wax nu un peu kumba bi mu toogee boobu ba léegi wayul absence bi mu am ci seen biir ci groupe bi lan la def ci yéen absence bi mu am sax si musique sénégalaise ngay wax. Mhm. Euh, mais d'abord ci yéen parce que musique sénégalaise ñepp joytu jooytu nañu ko ba léegi. Mhm, mhm, ñun ñu ngi koy Wow, waaw waaw waaw ni ngeen ko dundé nak xam nga ñun it non lañ ko dundé parce que xam nga and ak nit. parce que mom moy suñu deuxième famille parce que ñun li ñuy passé ensemble moo ëpp li ñuy def suñu kër. parce que tout le temps ñu ngi répétition tout le temps ñu ngi voyager di nekk ay trois mois ensemble. di bokkandoo di lekk di naan di tourner ndoo di defandoo lépp. bu loolu jékkee-jékki ci benn minute rek lu kenn yëgul jékki-jékki dagg faaw mu am impact bu mu def mais sant yàlla bi nga xamee ne que bii ni kim ko séexal dafay jàmbaar dafay gor parce que nag as gor su gorewul bay ndox di naan peut-être su robinet ubbee rek mu waaye gawlo ñetti at wayoo nga téye say musicien parce que ñun trois ans Coumba Gawlo joué ku seetaan vidéo bi xam ne Coumba Gawlo bu teewuloon ay musiciens lii ñu def duñ ko def. Mm. ndax man Birame Ndella Penda Bouré sama maam. Mm. lébu pire laa lu ma waay lebal laa lay fay. Mm. mu lebal ñu ngor jinu teraanga Kumba Gawlo li mu waay yëpp daf ñuy fay. Mm-hmm. télé laa toog. Mm-hmm. musiciens yaa ngi may dégg ñoom dañ fi waroon ñëw tey embouteillage bi xam naa moo leen téye ñoom musaa Diop ak ñoom ñëpp dañ fi waroon daje. Euh, du tabaski. Mm-hmm. du korité. du ngénte. lépp lu ñu soxla. Kumba Gawlo moo ciy taxaw. ak ni mu defee standby. ak ni mu def ñun nag loolu nag daf ñu doon tous am na. parce que parce parce que liggéeyul depuis depuis quelque temps bien vrai que mi ngi ay. damay joxe anecdote yu bëri mais ci musique bi. waaw euh, dundul. lu ah. ko ak yéen ñi nga xamante ni yéen a ko jege. daf ñuy fay ba léegi. d'accord xam nga kon kooku moom loolu dafa tëj lépp. Euh, et c'est normal parce que mom deretu gor moy daw ci ram mom lool la xam mm-hmm. lool la namp mm-hmm. lool lañ ko jangal mm-hmm. mom buy and ak nit ya koy bayyi waye mom dula bayyi ku ba Gawlo bu la xese te même bo mënul bo xese dugg do génn mom non lay téye nit euh, mu am ci man confiance bu reuy ma am tamit responsabilité bu mag ak cër bu mag bu ñu am ci euh sant yalla nak bu baax corité euh, bi passé danoo jékki-jékki comme dañu yor groupe whatsapp boo xam ne ñun ñëpp fa la ñuy waxtaanee euh, buy annoncé dara day jox musiciens yi xaalis foofu la koy dugal ba mu duggee euh, ñun musiciens yi ñoo dugg ne ko duñ ko jël ah ndax ñetti at wayoo mais Kumba yow liggéeyoo yaa ngi toog mu ne mais xaw ma ndax yéen a ngi lekkam yéen a ngi naan kon ku mel noonu dafa jara àndal mm-hmm. euh, mu def lu ne ci réew mi Eh, toga grandam yëpp toga presidente, yëpp Afrique foo dugg Coumba Gawlo fu presidente ci dem président bee koy dalal lu ma fekkee muy xeex ci jigéen di xeex pour xale yu ndaw yi di xeex pour Sénégal téye drapeau bi ñu mel noonu nag waruñu absenté ci suñu seen ñu mel noonu waruñu manqué ci suñu rawatina et puis musique bi muy incarner musique africaine bi muy femme africaine bi muy ah, euh mu nek lo xamantene image la bo xam da fay refléter Sénégal gi aduna bi yépp lay refléter mais ci lolu dina ci ñëwaat. Mm-hmm. Mm-hmm. ngir gëna yatal ak yow comme que ñi ngi ak euh, mom mm-hmm. ci téléphone bi mu di euh, chef d'orchestre bu Kumba euh, Gawlo groupe mu di Grand Laye Diagne studio. Oh. dañu koy jël ci antenne bi mu def témoignage. Euh, salaamaaleykum grand Laye yaa ngi en direct ci ITV dañu lay nuyu bàyyi la nga nuyu teg euh, téléspectateurs yi. ndeysaan d'accord

maa ngi kontaan ci question bi. parce que en euh, témoignage moo mën a def déjà. d'accord euh, ci ci Kumba. nekk na loo xamante ni euh, vraiment loo xam dañ ko dund. d'accord duñu témoigner nii rek comme ça pour les beaux de qui que ce soit. famille déjà ñun famille lañu. Mhm. ñu nga gis noonu ñu toog. Mhm. nekk foofu. Mhm. ak musicien Kumba yëpp famille lañu. xam nga. ñu ngi suñu WhatsApp ñu ngi gisante ñu ngi toog ñu ngi partagé def énormément de choses. xam nga donc lépp lu ñuy def tey ki nga xam ne mooy njiit bi di Coumba Gawlo amul dara lu ko ci umb. parce que mi ngi ci biir groupe bi xam nga bien que ngi alité woon nekk kii di faj mais tout le temps mi ngi ci biir groupe bi xam nga di participer di joxe nouvelle am. donc ñun dañu rester en famille xam nga rester en bloc xam nga di liggéey. xam nga kumba bi nga gis mais tëdd na liggéey na ci tëdd gi mu tëdd parce que moom dafa am jom jigéen bu am jom la. liggéey aussi. énormément de choses yoo xamante dina nekk ay surprise fii ci Sénégal. parce que toogul woon rek. bien que bien que dina doon surprise loolu mënu ma ko wax sax xam naa bientôt très bientôt soo moytuwul dans une ou deux semaines. d'accord di ngeen gis leneen ci moom loo xamante ni. wan dina wane ni jigéen bu am jom la mhm. ah nekk jigéen bu am jom bo xamantene ne ji ñing ko gis ñu tax ak témoignage bu gars yi daf bu ñu mën di daf rek mhm. am ak euh, tay chanson bi nga xam tëjee nañ ko pour euh, vraiment wax mu dellu ci waat di lolu yéene ak xolu musicien yi. d' idée bi d' idée chanson bi euh, fan la jógee ak naka la démé ba ngeen rendre ko hommage. waaw waaw xam nga dafa nekk loo xamante ni xam nga gars yi famille la. Mm. groupe famille dañ nekk ci groupe boo xamante ni groupe bi depuis sos nañ ko magaye ko sosoo yàgg mm. xam nga donc dañuy partagé. xam nga donc ba mu amee idée bi moom ci boppam magay xam nga ñu nekkoon ci di ci liggéey di ci wax. di ci wax di ci wax di ci wax ba nga xamante ni jege na anniversaire am ñu ñëw fekk na gars yi pare nañu ñu daal di dugal affaire bi studio nag. comprendre nga laa ñu ne attends nañ ko defal surprise Kumba nga xamante ni moom mu xam ni ñun ñu ngi ci ginnaawam. te ñu ngi toog di ko xaar te nit ci Sénégal moo koy xaar xam nga adduna bi yëpp a koy xaar. xam nga donc voilà mu nekk loo xamante ni daal vraiment. Mhm. gars yi dañ koo topp nag. dañ ko koo yéene nag. parce que moom moo ko liggéey ci gars yi moo ko def ci musiciens yi. d' accord yow yow en tant que euh, en tant que chef d' orchestre lan ngay promettre euh, euh, mélomane yi ak soppey Kumba Gawlo yi pour ñu gën a mën a ànd ak xel mu dal pour comeback bi mu war a def après. Euh, Padros euh, ku moom kàmbat bi yàggatul ah kàmbat bi yàggatul te nit moom laa lay wax léegi ci su peu de temps di ngeen ko gis beneen ci beneen facette xam nga ci beneen ci fierté xam moom soo saa boo koy gis rek day ànd ak fierté parce que da nga koy gis ak beneen dimension mhm. xam nga di ci su peu de temps dina ko gis beneen boo xamante ni dañu xam ni kii kat la te amul caaxaan. xam nga moom kon kon kon nii kon ñun mën nañu jàpp ni standby bi euh, du woon euh, feebar na rek dafay toog euh, daal di keru. Mm-hmm. non moom dafa bëgg a tëdd. du nit ku bëgg a tëdd. donc tey tëdd na parce que mënu woon bañ a tëdd faaw mu faju. d'accord mais dama la bëgg wax que jom moo àndal même bu tëj tëddee mu ngay liggéey.

xam nga ak parlo bu ñu àndal ak téye bu ñu téye mm-hmm. jàpp téye bañ a bàyyi mm-hmm. donc vraiment maa ngi leen di remercier aussi di leen féliciter encore ci single bi mm-hmm. xam ne vraiment sama gars yi daal affaire bi moom rafet na kontaan nañu très bien kontaan nañu jërëjëf euh, Laye Diagne ñu ngi koy remercier lay Diagne studio alors magay euh, lan ngay wax deux mots après euh, Toutou Mami am na lu ñu war a mën a dikk ak ci Kumba lan ngay wax en tant que lay lan ngay wax ci lay Diagne li wax ci liggéey bi nga xam ne Kumba mi ngi ci ak li muy toog toog lu yàgg feebar ab absenté ci scène musicale bi. waaw euh, li laay jaañ wax rek lay dëggal. Mm-hmm. Euh, famille la. Mm-hmm. Euh, ko am xalaat. Mm-hmm. man idée bi c'est vrai mënoon na jóge ci ku nekk nag. waaw mais bi ma ko. ci yow bi ma ko bi bi ma bi ma ko amee. Uh-huh. toog moom laa woo. ne ko idée bii laa am. lii laa bëgg ñu def ko. moom tamit mu nekk grand boo xamee ne que ni bii grand bu bu bu am passif la. Mhm. ah dafa immédiatement. Mhm. ñu waxtaan ci ma wax ko ni ma ko bëggee. Mhm. mu wax ma ci ay conseils euh, comme moom mooy suñu chef d'orchestre. ñun duñ def dara te waxtaan ñu ci moom. Euh, même bu ñu amee lu ñu bëgg a kaas sax ci kumba. rus nañ ko rus goo xam ne laay jaañ la ñuy wax. xam nga. donc donc donc donc mu arrêté liggéey bu mu doon def yépp jël studio jox ñu ko. Mhm. ay jours yu bari. Mhm. fa lañ tourné clip bi fa lañ defee morceau bi et tout. xam nga mu assisté ko xam nga ba liggéey bi toll fi mu toll nii. Mhm. donc sant yàlla bi nga xam ne ki ñu ko defal tamit. Euh, bi mu ko bi mu ko bi mu ko bi mu ko bi mu ko yëgee. ñun gis nañ yëg-yëg bi mu ci am. parce sax des fois nga defal ko dara. Euh, mu xaw koo kii mu mu mu jël ko demi mesure. mais daf ko jël téye ko ci loxoom. jël morceau bi jël clip beeg yëpp ne lii seen yoon nekku ci. man maa ko moom maa koy dugal sama Facebook maay def sama bopp sama promotion maa di jàppale boole ñoo euh, stafam bi yëpp mm-hmm. ñu gunge ñu boo gisee Karim mi ngi nii mm-hmm. boobu ba léegi mi ngi ciy sonn Karim moom moom tayiwul benn yoon tayiwul benn donc kon mm-hmm. sant yàlla rek waaw sant yàlla comme li laay wax rek euh, ci semaine yii rek euh, da ngeen gis Kumba kon jeex na loolu Sénégal loolu teg loxo waaw mayam foofu rek <laughs> dañ ci teg loxo <laughs> oui mami tutu jar a rendre hommage les mmh. politiques sénégalaises mmh. mmh. parce que ku ñu berse la koo xamante ni su ñu waxee tey Youssou Ndour moom ci jigéenu sénégalaise boo xamante ni ndeysaan yaay booy allah <laughs> def na lu rëy si musique Coumba Gawlo Seck la ñuy wax bi muy nekk xale bu ndaw la marqué empreinte am si musique dafa ñëw rek nekk icône xaarul ba màgg xaarul wéy lu yàgg la nekk icône am ay raaya macha allah te depuis ay wéyam su yéetewul rek mu ngi jàngale mbaa mu ngi défendre u nekk koo xamante ne ni comme ni nga ko waxee jigéen na ko ñor xale ak musique mhm. te musique am yëpp da ngay gis mu si défendre jigéen di si wane jigéen ni mu war a mel mhm. di wane ni moom noonu la mel te ni mu mel la jigéen war a mel muy jàmbaar mhm. yal na ko yàlla yëkkati si bu gaaw macha allah euh, euh, tutu bu ngeen ngee gis Kumba muy défendre yéen seen drapeau en fait jigéen euh, en tant que nit ku ñuul voilà mu mënoon a mënoon a yaa fuus tey yéen jigéen ñi ngeen bàyyi kook lépp gis liggéey bu ñu leen di liggéey sur le plan international pas euh, ci Sénégal kese lan ngeen di wax. Ah, DJ lu ñuy wax lu ñuy yëg ak lan la ñuy sentir lu fierté dañuy kontaan parce que moom ambassadrice la mës a incarné ci boppam depuis mu nekkee xale kumba ku ko xam-xam ne ci ONG bu ne nekk na ci ONG pour xale yi ONG pour jigéen ñi ONG ci santé lu nekk. bu nekk yóbbu na fa drapeau Sénégal taxawaay bu nekk kumba taxawal na ko population sénégalaise donc ñun lu ñuy njëkk a def mooy ñaanal ko ba xam ni ay tànkam fu mu ko bëgg a teg sax àggu ko fa ndax kumba nag quoi quoi lu ñu mën a wax rek mooy dafa teel dugg ci carrière dafa teel a inc maanaam comme bu ñu bëggee wax euh, âge am ci carrière danga naan dafa bëri mais moom teel cee dugg la teel cee dugg la ak donc fu ñu war a àgg dëgg-dëgg àgg fa ba tax moom mi lay posé waat la question à ce que euh, population sénégalaise plus particulièrement état sénégalaise ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi wër Kumba ci neexal bi mu leen daan neex ci way ci représenté bi mu daan représenté ñoom fan lañ taxaw Kumba puisque yéen yéen a ko gën a jege depuis bi ko lii arrivé ak léegi. très bien loolu dinañ ci ñëw léegi léegi mais le temps ñu ci ñëw dañu koy jël par téléphone moom DJ Boubs parce que euh, euh, mooy suñu kilifa ci kër gi ku ne xam na digganteem ak Kumba. Euh, euh, gaulo mu taï musical Tissène absence euh, aussi marqué témoignage plusieurs fois depuis que Kumba def stand-by ci carrière bi tu dañu le nuyu bàyyi la téléspectateurs spécial hommage nous rendre iNews Nutritives eh, nyari se non funeer yooyu si si plateau bi. dama ñaari tub fii quoi. non ñaari fila Faroche. alors il faut respecter les filles faut pas dire des tubes. pour ah! dire des fleurs des fleurs. des deux fleurs. voilà les deux fleurs d'accord. les deux fleurs. <laughs> maa ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm. ñu ngi lay siyaare bu wér. ñu ngi am mbégte tey. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di musicien Kumba yi euh, maa ngi ko def benn hommage rendre ko Kumba ñu ko dellu si waatal yàkkamte nañu la ma xam ni loolu sénégalais gi yëpp sénégalais yëpp ñoom ñoo ci àndandoo euh, waxandoo ko bien vrai que ci seen gémmiñ la génn waaye yow yàgg nga koo wax depuis Kumba def stand by ci scène musicale bi ban témoignage def ci loolu dëgg la loolu ñu def loolu ñu def rafet na et puis euh, Kumba tamit euh, dafa demoon faju euh, tout en espérant que mi ngi ñoo ngi koy nuyu bu Boubacar émission tamit bi ñuy def défilé o Ombiriko bi ñoo ngi ko doon ne ko Kumba ñoo lay xalaat spontanément hein, on dit Kumba on pensait à toi et puis à dañu bëggoon vraiment yàlla yàlla may ko wér yàlla yàlla euh, wéral baat bi parce que amna lo loo xam ne Kumba Gawlo da ko liggéey ci réew mi ci walu art ci walu musique ci wàllu spectacle euh, ba nopi dafa nek un modèle pour jigéen ñi modèle de témérité modèle wu euh, xam ni maanaam du Hamga kumba ni mi jéem nañ ko sërxal fu ne nit ñi jéem nañ ko daaneel fu ne jéem nañ ko yàqal fu ne jéem ko toroxal fu mais kumba a toujours été grande a toujours eu des des initiatives a toujours travaillé

disque de platine yi fi la fekk disque de jamaa yi fi dama fekk euh, album yi fi dama fekk tournée yi fi dama fekk tournée yi muy montel boppam fi dama ma fekk tournée plage yi fi dama fekk euh, vraiment mu yàgg am succès sur le mbalax yàgg am succès sur le marché international euh, vraiment ñëpp respecté ko jox ko cër donc bu ñu demee ba koy defal hommage bu mel nii mu am instinction de voix voix am fay mu am

pour nous promouvoir la culture africaine. Euh, si a un impact parce qu'il y a des choses qui manqué par exemple. Euh, euh, boo seetee ci qui ci scène bi spectacle jigéen ñi tey titi ngay gis ak Kumba ak ak ak Viviane Kumba mm-hmm. euh, Gawlo amoon particularité Kumba mm-hmm. Gawlo dafa am particularité sur sur sur sur sur sur sur la musique moderne am particularité sur la musique tradie moderne sur la musique traditionnelle Kumba Gawlo dafay defar un album traditionnel mm-hmm. dafay un album ay ay ay dafa dafay album international registre yëpp nit mënul way ci registre yëpp Kumba Gawlo daa mën way ci registre registre yëpp dafa mën a way ci registre yu bare bare bare disque international am boo ko déggee pata pata nga xam ni euh, ndaanaan la disque bu mu mujjee génnee nii nii nii boo ko déggee nga xam ne ndaanaan la euh, bu mu mujjee génn bu mu def tour du Sénégal way ci langue yëpp boo ko déggee nga xam ni ndaanaan la kumba daal kenn la mais lii rafet na rafet na te ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na am wér Coumba Gawlo yàlla na am wér vraiment yàlla na am wér yàlla na am wér macha allah oh, amin merci Boubacar Didier Bopp ñu ngi lay remercier waaye ñoo ko bokk merci beaucoup euh, témoignage bi mu def ci Kumba euh, mënu ko ñàkk bañ a def comme ni mu ko waxee fekkee na lépp depuis euh, bi ñu koy njëkk a jox tabal euh, disque d'or di ko tabal euh, euh, disque platine yooyu yëpp fii la comme wax na aussi wax impact bi nga xamanteni euh amna actuellement ci manque de présence am ci scène musicale bi lolu yakana aduna bi yëpp ko gissando parce que mom li mu doon promouvoir la culture africaine dafa bari particularité bi mu am dafa yatou ci côté musique traditionnelle moderne ba ci tradi moderne lepp lu doon promouvoir magay te bu ngeen toge ba gis Sénégalais yëpp gis valeur bi Kumba am ci culture africaine yéen en tant que musicien loolu lu muy def ci yéen. Euh, waaw sant yàlla xam nga tamit euh, ànd ak ku mel ni Kumba Gawlo fierté la. fierté la ci ñun ndax euh, ñu ñuy ànd ak moom xam nañ mooy kan. loolu nag ku xam Kumba Gawlo. jege ko di nga xam ne loolu war naa mën a nekk. loolu war naa mën a nekk ndax. du nelaw guddi du nelaw bëccëg mm-hmm. léeg-léeg sax dama koy wax ne ko sa feebar bi yëpp ñàkk nelaw la ko teg ndax du nelaw mm-hmm. mooy njëkk a xëy mooy mujjee mm-hmm. day nekk bureau des fois ba minuit donc euh, bu demee këram du nelaw kumba du lekk kumba des fois ñu ànd aéroport dem wàcc ci aéroport mu jékki-jékki toog ne mënutul xam nga mais du bàyyi dafa dafa nekk jigéen ju mën góor donc nit nag booy liggéey Euh, teg ko ci yoon teg ko ci professionnalisme suñu borom du la seetaan li nga xamee ne que moom lay incarné loolu la gëm kumba li muy incarné du loo xam ne daf koy incarné pour ci télé wala ci média mais kumba noonu lay dundee noonu la ko yàlla bindee ci professionnel noonu la ko yàlla bindee ci ci ci ci ci liggéeyam ku muy liggéeyal muy der bu weex muy der bu ñuul muy ku mu mën a doon ni muy ni muy muy liggéeyee ak kii noonu lay liggéeyee ak ka des parce que ci deret ji la nekk noonu lañ ko yare mm, mm, mm, donc moom euh, noonu la mel des fois sax ñu ne Kumba dafa compliqué mm-hmm. man damay faral di wax ne mm-hmm. bu fekkente ne amateur nga Kumba Gawlo day compliqué ci yow parce que professionnel la. Mm, mm, mm, waaw amateur nag. professionnel day compliqué parce que waaw c' est juste parce que. lu bëri dañu ne combat dafa euh, man bi may bi soog a ñëw ci Kumba. man dama ne damay bàyyi. parce que boobu maa ngi soog a ñëw man na maa tardé. d' accord ma joxee heure du ma ko respecté. hôtel bu ñu waree joué bis ba dana dem bayima d'accord donc xam nga ci ko xamantene mom moom heure la xam li mu heure c'est l'heure après l'heure ce n'est pas l'heure avant l'heure ce n'est plus l'heure mom légui nak lolou day compliquer ci nga xamantene sama jar gi nga xamantene man damay tardé ban tëj buntu hmm. mais lepp lu mu wax boo ko après la comprendre que né hmm. affaire bi dafa am fu mu nekk kon ki fi mu yegg si dafa am lu ko fi yeggale hmm. ñu commencé nak ñu nit di am commencé am habitude bi de commencer di di jël ci mom ay ki bala ñëw même bu bu bu parce que mom nak bala ñoo yex day ñëw tok mhm. donc ñu nit dañu gëna goré dañu nangu mom it mu jiitlu fa. donc ci lépp. ci ci ci ci ci ci ci concert yi. Mhm. ci ci ci li nga xamante que mom la représenter mhm. lépp dafa nek lo xamante daf koy togg daf koy bind du improviser. c'est vrai. Coumba Gawlo du nit bo xamné ne day toog rek. improviser dara nek ci xelam rek koy def même bu nekké ci xelam dina ko saytu waxtan ci ñim ci wara waxtanal waxtaanal bind ko analyser ko ba mu lér ko ne li fi lay jëm fi la jëm mu soog cee dugg. d'accord donc lolu lolu aha ko relancé woon sànq muy euh, Kumba dafa doon représenté Sénégal Kumba doon bu musul way loo xam te du dem mm-hmm. buy way chaque jour da ngay xam ni kii dafa am loo te lu la représenté mm-hmm. soit jigéen soit xale comme ni ngeen ko waxee dafay chaque jour dafay am ay engagement yu mu doon jël envers suñu réew muy Sénégal mm-hmm. donc ba ko lii arrivé la lay fa lay ñëwaat ba ko lii arrivé naka la état sénégalais doxalee moom naka la sénégalais yi doxalee ak ki nga xam te ne mooy Kumba suñu Kumba national pour mu taxawaay ban taxawaay. waaw euh, xam naa ne. Kumba mel na ci réew mi noo xam ne. Mhm. état du ko seetaan. Mhm. mel na ci réew mi noo xam ne képp ku yeewoo ci Sénégal. autorité ñëpp. autorité. Mhm. ak fans. ñëpp a nekkoon ci ginnaaw. loolu nag sax. moo ko moo ko moo ko moo moo tax sax affaire bi. dem ba tey ñu koy nettali. Mm-hmm. bi mu génnee ni dafa feebar ñëpp a amul kenn ku ko seetaan. Mm-hmm. parce que moom du ko ñuy seetaan. Mm-hmm. parce que patrimoine la. Kumba Gawlo amul euh, fii amul gauche amul droite ñëpp ñoo ko bokk. dafa may nit ñoo xamante ne ñëpp leen di bokk. ñëpp leen di bokk Kumba def cee bokk.

ci réew mi euh, nit ku ne da nga ciy gis sa bopp. Mm. ba pare ba pare ba pare Kumba Gawlo ni muy doxalee musique am ak euh, ni musique di doxee. Mm-hmm. bokkut mm. moom euh, gis-gisam ci musique dafa wuute parce que moom looloo waral sax ñëpp la maasandoo ñëpp ko bëgg. parce que Kumba mm-hmm. Gawlo du offensé kenn. Kumba mm-hmm. Gawlo ci ay wayam dafay wax ak àdduna bi yëpp. donc nag. il faut àdduna bi yëpp tamit bu amee lu ko arrivé il faut ñëpp wax ci yemul Sénégal kese tubaab yi ñëpp documentaire yu bari def nañ ko ci moom yoo xamee ne que bii ne pour ko juste euh, encourager ko pour que mu gaaw dellu si parce que nag euh, wéetal na musique bi quoi qu'on puisse dire Coumba mm-hmm. Gawlo ci absence su musique Afrique sénégalais yi parce que nag ñëpp a yàqamte xam nga sénégalais moom amul patience xamul xamul ay xaaral ma tane ma wéer ma lii dañuy bëgg rek nga leen di jox ñuy cons muy neex alors pression bi nga xamante ni yéen musiciens yi déjà léegi doo ko mën a tutu parce que suñu yaay mi ngi ci téléphone bi dañu koy jël par téléphone moom ajaratu Fatou Seye Mbaye mi nga xam ne tey moom moo waral coow li yaay booy ñu ngi lay nuyu yaa ngi en direct ci ITV Euh, tey ci plateau bi nga xam ne ko jël jagleel ko euh, Kumba li nga xam ne moom moo di jagle bi ñu ko jagleel nag jiitu euh, ci ñi nga xam ne moom moo di groupe orchestre am salaamaaleykum yaay booy. waaleykum maa ngi lay nuyu di la siyaare ci coono bi ak déplacement bi ñu la def ci téléphone bi daal. <laughs> ndeysaan maa ngi lay fay man tam. jërëjëf jërëjëf. di kontaan mm-hmm, allah. di am mbégte moo xamante ne mu mag a mag la tey nag. Mm-hmm. am ko ci yow am ko ci TV. Mm-hmm. sama doom yooyu nga xam ne ñoo fi nekk. ñoom ma kay. Mm-hmm. Euh, yaay booy tey waxtaan wi dañu koy tënk ci benn jëm muy Kumba Gawlo bi nga xamee yaa ko ba tey ji coow li coow li bari lool ci moom muy que. jom ji mu am femme leader bi mu doon Kumba euh, brave bi mu brave ba tey ji euh, euh, c'est vrai que ndok-ndok am na tuuti ci carrière bi waaye teewul mi ngi gën a am courage wu dellu si waat en force lan nga di wax un ci sa doom jooju ak courage bi mu am ndeysaan xam nga àddina jom rek moo nekk jom ak ngor ak diine loolu mooy matal jëmmi doomu aadama bu nekkul ci yow rek loolu moom bu yóbboo nga daal di faatu benn yoon rek te xam ne sa dara matul mhm. asgor day am jom am ngor am diine mhm. bari jomb-jomb mhm. xool nawle sama yaa daanoot naan bu ñu lu neex waay mel te loolu

tabaarakallaahu dafa mos a am jom xam nga wala fi nee nañ jom ndey daraja baay jikko xala yàq ça c'est vrai ci boo ko déggaloo waaw jom jooju dafa ko naam daf ko naam nga tàppaas ko tey songoog yow xeex boo koy rey sax du la woon gannaaw waaw eh, bu ñu koy bu dégg muy way ñun ñëpp suñu xel dafay dem ci yow surtout boo waayee ba way ci traditionnel la ku ne xam na ndaanaan gi nga doon eh, ci musique bi ku ne xam na ndaanaan gi nga doon ci eh, culture africaine parce que dëgg la Kumba liggéey lu bari waaye yow it liggéey nga lu bari bu ñu koy gis muy waaye suñu xel dafay dem ci yow tey ni mu toogee lu yàgg wayul yow en tant que yaayam yëg-yëg boobu noo ko mën a nattee loolu dama koy sant sa borom te xam mhm. ni julit du ñàkk ndox ndox waaye boo gëmee sa borom tey ñaan di julli di ñaan day teñ aha yàlla ku mu teg nattu rek bëgg na la mhm. te ngi lay gestu natt bi noo ko nattee natt bi nan nga ko teg noo ko nattee pour pour pour gën a delloo si waat xelu sénégalais yi que xamal leen ni que jar nañu am pression walla jar jaru ko luy dañ lay doon insha allah ndeysaan alhamdulilah insha allah luy dañ lay doon julit day nangu dogal mm-hmm. waaye lii ma li ma gëm mooy mm-hmm. luy dañ lay doon ci kattanu yàlla incha allah incha allah yàlla di teggi la bu fekkente ni si ñaanu waajur ak ñaqal sa waajur rek sa ñaari waajur mm-hmm. mooy tax kenn du la yërëm incha allahu ya rabbi mm-hmm. lii luy dem ci sunu gannaaw lay doon bu sooba yàlla xam nga sa doom xam nga jom ji mu am xam nga fit bi mu am xam nga capacité bi nekk ci moom ci liggéey bi muy liggéey euh, euh, tey lan ngay wax sénégalais yi comme euh, ni ñu ko laajee boubs tout à Euh, que ni euh, Kumba absence bi mu am ni mu absenté ci scène musicale bi est que am na lu muy impacté euh, ci carrière am mun nañu waaw parce que Kumba li mu représenté moo bari tey toog bi mu toog lu yàgg wayul lan lay impacté ci yow ci sa côté ci côté liggéeyam. xanaa delloo lépp sunu borom rek. Mhm. te ko mu dellu si waat ci liggéeyam. Mhm. ci jàmm ak salaam. Mhm. loolu la rek dañ koy ñaanal mu dellu si waat ci liggéeyam ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. ndeysaan may sant ñëpp nag. Mm. di sant Sénégal yëpp. voilà loolu la ñu bëggoon euh, waxtaan encore ak yow pour jeexal ko muy que taxawaay bi Sénégalais yi taxawee sa doom bi mu génnee génnee xamle ni kat dina def tuuti standby ci liggéey bi. Euh, Sénégalais yëpp kenn ku ci nekk ñii jooy nañu ñii wane nañ seen cofeel ñii wane seen doole ñi wane seen mën-mën. wane ni kumba national la. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la gis nga uh, kumba mënul fay Sénégal. Mm-hmm. mënul fay sax àddina laay wax. te xam na loolu. nee ma yaay. Mm. ma ne ko ah mu ma su yàlla jëlee ci ci jàmm ak salaam ba ma delluwaat na ma meloon. Mm. beneen taxawaay laay am incha allah. parce que. lu ma góorgóorlu woon dinaa ko doon parce que deseelu ma àddina dara li nii ñëpp la metti ñëpp may ñaanal ñëpp ko bokk ak man te gis nga liggéey euh, askuma li fa nii yàq naa ci ñu bare bare bare bare ah waaw bàyyi naa ci xel ñu bare bare bare bare gis nga bu dee neex toujours toujours hmm. doo xam ñi la bëgg il faut mu mel na leen nga soog a xam ñi la bëgg lii lu baax la hmm. parce que xame naa ci lu bari moom tam xame na ci lu bari may gërëm àddina yëpp di gërëm Sénégal yëpp di gërëm nag fan club bu Kumba yi waaw d' accord gawlo yi ma di leen yi. ndeysaan. yi. ñu gore lañu. di nga nekkee nit xale yi man am dama ak ñoom fu ne. Mhm. gis bi ma dégloo seen single bi ñu def. Mhm. damaa jooy. kumba bi mu ko dégloo dafa jooy kontaan. man xale yi ñoom ñëpp ànd dama ñoom fu ne. Mhm. ànd na maa ñoom Europe ànd na maa ñoom Amérique ànd na maa ñoom ci pays africain yi bu mm. ci nekk ngor rek laay dab ci ñoom ñoom ñëpp nag ngor rek laay dab ci ñoom mm-hmm. moo tax nii nu doxale nii war na ma ni fàttewuñu ko mm-hmm. te bu yàlla dogalee mu dellu siwaat dina am beneen taxawaay ci ñoom léegi fi ñuy jeexalee ak yow mooy euh, Kumba bu ñu xoolee ni mu mel ci famille bi mën nañu ni mo yore famille bi mo yore njabot gi mo la yoron mo la yor mo yoron bayam euh euh tay toogaay bu yàgg bi mu tok ni est-ce que amul lu mu impacté ci biir famille bi. mo ma yor ba légui c'est ça ma sha allah. fa tabarakallahu ahsanal xaaliqin. alhamdulillah mo ma yor ba légui c'est ça allahumma laa yadum. yàlla bu ko sama cat dugg yàlla bu ko catu kaneen dugg taxawaalu ma fenn dem ma fenn su ma gisee ngénte rek sama bokk yi nga xam ni ñoom laa maasee la ndool yaroog ñoom jàngandoog ñoom alquran maasee ñoom ñuy waa maam Seydi Hadji Malick ñu bokkoon ñu bokkoon daara mm. ñooñu ñu màggandoo nag ñooñooy am gis wooma taxawal ma waaye taxawaalu ma fenn fenn fenn bu fekkente ne nag taxawaaluwuma fenn dem ma benn xew bu dul bu ma woo yàlla jëmmam la ta jom jooju nekk ci moom ak cofeel googu mu am ci ndey moom la ay rakkam bis ba am ko ci ñoom ba am ko ci man ba bëgguñu ma taxawaalu fenn macha allah moo ma yor moo yor ay rakkam te lii ko dal nii personnalité bu mat sëkk la ci àndal fa tabaarakallah ah, waaw ak dignité it nag diiñ taxawaayu fenn ñu ngi France di faju mm-hmm. amul këyit mooy faj boppam ah mooy faj ay ay rendez-vous am mooy fay ay analyse am mooy jënd ay garabam mooy defal boppam yëpp macha allah xanaa koo xamante si nii rek nitam nga xool nga ba xam ni yow mii war nga koo defal mm-hmm. nga defal ko waaye tàllalul loxoom fenn ndax jom ji te nanguwul ma tàllal sama loxo fenn mm-hmm. ma tàllal sama loxo fenn lu ma waaye jox dag ma koo yéene macha allah tey mi ngi lay déglu moom mi ngi lay déglu mi ngi lay seetaan ban message nga am pour wax ko ko ndeysaan na góorgóorlu rek mm-hmm. dama ko waxoon rek góorgóorlu rek gën a la góorgóorlu sax laa lay wax ne moom mi ngi góorgóorlu mm-hmm. bu mu wàcce ay loxoom benn yoon lii ay temps rek te day jàll incha allah day jàll ay temps waaye maa ngi lay seedeel ni sant naa musicien bi sant naa fan si la doon. alhamdulilah jërëjëf yaay. di nga ànd ak ay musicien ñuy liggéey ak yow. xale yi fu ne ànd naa fa ñoom ni ma la ko waxee sànq. ni ma la ko waxee sànq. xaalisu seen bu ñu mayee ci kaw seen. kumba du ko lekk bu ñu ko mayee suma ma fa nekkee man la koy jox. ma dindi ci li ma ciy dindi jox leen. te du bokk ak seen fay. su sa ci rajo laay waxee su fekkee nekkuma ko mu jox ko Laye Diagne ñu ko séddaleel musiciens yi te Laye Diagne di ci soxla dërëm ku ci nekk loo ci war a am di ko ci am barke Seydil Hadji Malick. macha allah ku ci nekk loo ci war a am di ko ci am. lu muy lekk kaw seen xanaa liñ koy fay. waaye li koy may nii am am am am ci kaw seen bi. waaw da koy jox xale yi parce que dañoo bàyyi seen njaboot ànd ak moom. ah ma di ko ñaanal nag. Ah, ma di ko ñaanal nag yàlla delloo si ko ci jàmm ak salaam. jërëjëf yàlla delloo si yàlla dàqal ko cet. yàlla dàqal ko ndog yàlla may ko wér. ñoom magay nee nañu nam nañu ceeb yi. ndeysaan yéen samay doom ngeen. waaw ñu doom ngeen tax xale yoo xam ne bàyyi naa leen xel ngeen de. gor ngeen de. Mm-hmm. seen single ngeen def laal na sama xol te am na lu bari lu def ci man te ay waleen nu dem. Oh. ay waleen nu dem. jërëjëf ay waleen nu dem. jërëjëf ndeysaan jërëjëf. jërëjëf Adja Fatou Seye Mbaye ñu ngi koy gërëm sama yaay la man dëgg la yaayu Kumba waaye sama yaay la man euh, Padros donc jërëjëf yaay booy ñu ngi lay gërëm ak témoignage bi nga def mën nañu def tampon ak vidéo boobu mu def ak euh, yaayam euh, avec la complicité de Laye bu so ab sa njaay ak ñoxor ab sa njaay corokule ab sa njaay ak birama daali ab solo or ñuy xiif ñun tëlu wurus ñuy xiif te bégoo di ñu xool ñuy jooy yàlla na la yàlla yi sa njaay ak ñoxor ab sa njaay corokuli ab sa njaay ak birama daali ab sa boy solo or ñuy xiif ñun te lu wurus ñuy xiif te bégoo di ñu xool ñuy jooy Fatou Kiné Mbaye mooy yaayam seetaan na ko benn yoon ba tey ji ak eh, li tolof tolof di am mu nekk dogalu yàlla nag Euh, moom yaay nangu na dogal bi waaye aussi euh, moom doom xam na ni am na yaay ju brave vraiment euh, Kumba Mamy Toutou lan ngeen di wax ci message bi yaay ji yëkkati tout à l'heure si biir message bi yaay ji wax dafa am lu ma ci marqué ndax Kumba dafa ne su dellusee gën a defaraat toogaayam ndax mm. sénégalais yi niñ ko taxawoo sénégalais yi niñ ko ñaanalee sénégalais yi niñ ko bëggee waaye man mm. dama naan lekkati kase naxul ba yàgg mm. parce que man su may xool icône femme sénégalaise

éducation si suñu éducation da ciy joué lu bëri su wayee nga nga nga dégg baat yi muy way dafa am solo suy dem di engagé wu ci yeneen ak yeneen dafa am solo ba tax na tamit jigéen euh, pression bu ma doon wax sànq sama euh, kii sama question ba jitul àgg maanaam pression sociale bi pression musicien yi pression fans yi ñëpp yàkkamti kumba et autres donc loolu mbaa du tax moom mu def loo xamante ni yàkkamti way ba mu impact ci li nga xamante ni mooy santé Kumba Kumba ay professionnel Kumba Gawlo gën a nekk professionnel. ay Kumba Gawlo nam nekk professionnel yéen xam nga leen Kumba Gawlo ki war a ko leen léegi. waaw bi laa ndey sax ku xulu Kumba Gawlo. nga xam ni kii dafa am jom moom ñii. xam nga bu ko neexoon bu ko neexoon. mënoon na feebar mu bañ a génn nii damaa feebar. Mhm. mu tëdd fi mu tëdd. Mhm. ñëpp xam na feebar ñi naan Kumba Gawlo fu mu ne fu mu ne. Mhm. mais ak ni mu nekkee responsable. moo tax mu génn wax li nekk ci moom. Sénégal wax na ko ci biir vidéo bi.

DJ, merci à Mami et mhm. merci à Magaï. Mhm. Merci à toute la population sénégalaise merci American Choose Samsung choose Best, bees Aïe, Dalou, ay merci bu